presse euh, di bind tey question politique je ne vois pas son impact sur le plan de la citoyenneté à part tiitange lu muy jur ci population mm-hmm. eh bien et sur les titres je vois Sonko contre tous c'est normal mais je dis que nekkul moom kese parce que dafa am ay opposants ay ñoñoom ñoo xamante ne ñoom Khalifa Sall mm-hmm. ñoom Malick Gakou ñu ngi ci wetam. di ko jàppale loolu lu baax la. parce que loolu loolu la amitié euh, laaj sa mbokk su nekkee si jafe-jafe war nga nekk ci wetam di ko jàppale donc il n'est pas seul. et c'est question judiciaire privée diggante moom ak benn citoyenne sénégalaise kuy Adji Sarr considère que dañ koo tooñ. et il est normal pour Ousmane Sonko de faire face à cette situation pour mu expliquer wu jéem a convaincre la justice je sais que y a un qui est ici pour qu'il puisse euh, quand même avoir la tête haute demain c'est ça qui est normal mm-hmm. euh, je considère qu'il n'est pas seul et Sonko face à sa responsabilité sa responsabilité ça aussi c'est un titre que j'ai lu mm-hmm. sur euh, un des articles ah. un des bon ces responsabilité si j'aborde ce côté bi ay waxal olof bu baax parce que effectivement su may aborder côté boobu mhm. je peux considérer oui parce que euh, depuis deux mille vingt euh, deux mille vingt et bi affaire bu euh, feeñee ñu ne Adji Sarr dafa déposer plainte gis nañu Sonko def benn conférence de presse jéem a wetti mhm. après ñëwaat na accepté na que réellement xale bu jigéen bi xam na ko bërëb boobu mos na fa dem léegi sa ligne de défense mooy na ko ay sénégalais jàppale ce n'est pas sur le plan pacifique mais sur le plan de la guérilla mm, xam nga loolu donc ça c'est une chose que lui-même a déclenché donc loolu responsabilité am la il doit faire face à ça mm-hmm. l'autre élément à laquelle il doit faire face mooy euh, bi muy dem tribunal à chaque fois su nar a dem tribunal day def conférence de presse woote pour ñu jàppale ko nekkul sur le plan pacifique mais sur le plan de, la résistance loolu tam c'est sa responsabilité war na def face par rapport à ça mm -hmm. c'est nous avons vu le 16 dernier dafa adopté benn principe je ne sais en tout cas benn stratégie mm-hmm. mooy jóge Dakar dem installé wu à Ziguinchor. Mhm. ce qui normal. Mhm. parce qu'il est maire la ba mais ce n'est pas objectif nekkul pour aller c'est-à-dire euh, gérer sa cité. Mhm. mais se retrancher pour appeler à une désobéissance. civique euh, civique. donc loolu tamit c'est sa responsabilité et doit faire face à ça. man noonu laa ko mën jàngate analyse mais bien